asalaamaaleykum chers amis internet yi ñu safoo dañu bàyyi xel fii ci Equivox TV euh, saa su nekk ñu am mbégte di leen tegtal seen actualité politique du jour ñu dooree ko ñi ki démb la xew fële ca assemblée nationale muy projet suppression bi nga xamante ne ni moom njiitum réew mi moo ko euh, sàkku di monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye li nga xamante ne moom mooy projet CESE e ak HCCT ndax jàpp na ni boobule euh, projet waratul dox fii ci sunum réew ndax jàpp na ni ne euh, projet boobu le xaalis bi nga xamante ne dafa war a dem ci askan bi warul di dem ci li nga xamante ne moom mooy ci loxo ay député ba tax na nag mu sàkk woon euh, pour que ñu supprimer euh, ñaari yooyule projet ni ki samedi bi la passé dañ ko njëkkoon a woon a def ay gis nañ ni Benno Bokk Yaakaar moom moo ëppale voix ba tax na démb tamit ñu indiwaat ko fële ca assemblée nationale ba tey it moom benn bokk yaakaar moom moo ëppale voix ba tax na jamono jii ñuy waxal ak yéen euh, boobule projet du CESE e ak HCCT euh, jamono ji kenn mënagu ko éliminer euh, fële ca assemblée nationale bi loolu amee nag ay député yu bëri na mer nañ ba futu ndax nee nañ waa bennoo bokk yaakaar mënoon nañu woon a bàyyi ñu supprimer li nga xamante ne moom mooy boobu projet ndax ñoom jàpp nañ ni la njiitum réew bu wax loolu moom mooy dëgg euh, moom mooy yoon ñoom ñuy nekk assemblée naka la ñuy munee di pasar pasare xaalis euh, saa su nekk lu toll si euh, treize milliards ba quatorze milliards ñoom ñu jàpp ne ni alal googule mun na dugg ci li nga xamante ne ni moom mooy askan bi ndax nee nañ jamono jii ni askan bi ñoom ñoo ko gën a yelloo ndax euh, liggéey amul nit ñaa ngi feebar euh, bëgg a faju loolu nekk na kàddu yi nga xamante loolu la waa député yi euh, yeewu ak wàllu yëkkati ndiki démb fële ca assemblée nationale waaye ñu gis ni ba tey daal loolu jotut a convaincre li nga xam ne ñoom ñooy waa bennoo bokk yaakaar ba tax na nag moom Abdoul Mbow ba mu jëlee kàddu moom na nee na ndiki tey mardi dina déposé li nga xamante ne ni moom mooy motion de bu buñ ko laajee la moo waral loolu nee na parce que moom dafa jàpp ne gouvernement bi fi nekk waru fee nekk nee na parce que Euh, euh, ñu nekk euh, saa su nekk rek li neex ñoom gouvernement bi loolu la ñuy indi bëgg leen ko forcer ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo nekk biir assemblée nationale ba tax na moom mu jàpp ne boobule gouvernement dañ ko war a tas waaye ñenn ñi jàpp ne Abdoul Mbow ay waxam yooyu noonu day def rek lu dul gën a naxasaayal li nga xamante ne moom mooy seen parti Benno Bokk Yaakaar ci wàllum politique fii si suñu réew ndax ñoom nee nañu que mu neex waa Benno wala mu naqari waa bennoo ñoom le 12 septembre bi nga xamante ne ni ci la ñu jëm assemblée nationale dañ ko war a dissoudre loolu nag nekk nag décision bi nga xamante ne bàyyeeku na fële ca conseil constitutionnel ñoom ñoo jox boobu leen dogal ki nga xamante ne moom mooy son excellence monsieur Bassirou euh, Diomaye euh, Diakhar Faye ba tax na le 12 bi la ñu war a dem si euh, si si dissoudre li nga xamante moom mooy assemblée euh, nationale ñoom nag nee nañ nag euh, bu jaree wàccaat sur le terrain dem laajaat encore askan bi euh, seeni ay carte ñoom dañ koy def loolu nekk na kàddu yi nga xamante ne ni loolu la waa Bennoo Bokk Yaakaar wax ndiki la démb ndax ñoom nee nañu ba tey ngi leen faloon ñoo ñu mun nañ leen a falaat ba tey loolu nag nekk nag ay kàddu yu bëree bëri yu bàyyeekoo ndiki démb foofu sa assemblée nationale waaye ñu gis ne aussi ki nga xamante moom mooy le premier ministre Ousmane Sonko barki démb gannaaw ba mu génnee di wax si 71 milliards facture yi nga xamante ne ni dal na ci kaw ndoddum état bi ba tax na nag moom na dóor na ci kaw table bi ñeneen nag la woon dina woon di mu ne parce que mënuñoo nekk ci seen biir bureau yi ngeen ngeen bëgg faa am ay télé ay machine à kafe di fa am euh, ay frigo mu ne yooyu la yëf euh, il faut que ñu gën leen a xoolaat bu baax a baax a baax a baax mu ne bañul dina am yoo xamante ne sax euh, dina fa am mu ne wante il ñu gën a xoolaat bu baax a baax li nga xamante ne nii moom moo nekk ci yenn entreprise yi parce que nee na état jamono ji lu ñu teg ci dam bi dafa bëri lool lool lool. gis ni aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy waa groupe Futur Média ni ki démb nag dañoo annoncé ni dinañu licencier euh, cent personnes ci li nga xamante ne ni euh, moom mooy ci seeni liggéey kay ci ko moom groupe Futur Média euh, nekkoon na télé bu mag a mag a mag fii ci suñum réew waaye gannaaw bi eh, njiitum réew bi wàccee ba njiitum réew bu bees bi ñuy toog boobu ba tey eh, ñu ngi am ay problème li nga xamante moom mooy diggante ak seeni ay ba tax na ñoom jàpp nañ jamono ji il faut ñu wàndi ñu bëree bëri ndax am na ñoo xamante ne ni eh, ba tey ñu ngi fay liggéey jotuñu li nga xamante ne ni moom mooy seeni salaire si fàttali ko aussi ñoom waa groupe Futurs Médias nguur gi mu ngi leen doon toppee pour que ñu fay li nga xamante ne ni moom mooy impôt bi naam jot nañoo dugal yenn yi waaye ba tey gis nañ ci li nga xamante ne ni moom mooy impôt bi euh, euh, def na lu bëree bëree bëree bëri loo xamante ne ni euh, dañ ko war a fay loolu nag lañ leen indiloon tey si seen actualité politique di jours di leen joxaat di daje ba suba incha allah.